Alioune Badara Cissé lay wuyoo moom affaire étrangère lañ ko dénk ak doomu sénégalais yay dund foofa ca bitim réew Alioune Badara Cissé nag euh, kii di Seydina Omar si xam-xamam màcc lool euh, ci wàllu diplomatie sàkku na ci moom daal mu indi ay coppite euh, ci niñ doon doxalee wàllu diplomatie réew mi waaye itam na ko wékk teg ko ci li nga xam ne moom mooy jën yi ko ngankoon dañ ci ànd ak Chérif Dia ak Youssou Baro lii moom mooy jëwriñ ji dénk wàllu jëflante ak bitim réew ak sénégalais ya nekk ca bitim réew moom mi ngi tudd maître Alioune Badara Cissé moom nag moo war a jëfee li nga xamante ni moom mooy politiku bitim réew bu njiitu réew mi. fi mu jaar wane ne ne eh, am na ay disposition pour euh, euh, def liggéey bi ñu ko jox benn euh, ñaareel ba affaire étrangère. Euh, dafa nekk ministère boo xam ne ni mu ko waxee dafa dafa sensible li ñuy wax ci tubaab sensible moo ne daal foo laal genn golo guddi nawante foo laal borom yëg ko. ambassadeur Seydina Omar Sy moom li mu gën a lu mooy kër ministère bi nga xamante ni moom mooy Sénégal yi nekk ci bitim réew ñu daal di koy indiwaat ci ministère des affaires étrangères. moom mu sàkku yeesal ci li nga xamante ni moom mooy politique étrangère bu Sénégal ndem sax nee na li nga xamante ni baaxoon na te ñu fekk ko fi ñu weelu ko. li lay wax doon def ci baax ci diplomatie wóor na ma ne Macky Sall dana ko yokk la nga xam ne daf ko daan def muy safaan wa moom it dana def mu safaanoo li safaanoo mooy li gën ci senegal senegal it ci bitim réew amoon na fa baat te amoon na fa place loolu it war nañ ko dox kon foog mu am ay réew yoo xam ne ñoom ñoo dend ak moom waaw ay dëkkandoo diplomate bi jàpp ne li nga xamante ni moom mooy xaar jëwriñ bu bees bi lu bari la rawatina fexe ba nga xamante ne diggante Sénégal ak dëkk yi ko wër di ay dëkkandoom gën a sell rawatina Mali nga xamante ne fitna ma ngi fay am. Sénégal moom fépp fu fitna am rek daan na fa taxaw waxantumaak nag réew mu mel ni réewu Mali nga xam ne. ay doomu ndey lañu ay doomu baay lañu. maître Alioune Badara Cissé nekk ki njëkk ci ordre protocolaire bu gouvernement bi moom moo wuutu maître Madické Niang nekkoon ca nguur gi fi jógee di fàttali ñu nguur googu ñaari ministre des affaires étrangères ak ñoo fa nekkoon di Cheikh Tidiane Gadio ak kii di Madické